décret ba wàcc na décret ba Alaaji Serigne Mouhamadou Lamine Macky Sall nee la 4 afrique bi nga xam moy mooy sunu suuru indépendance ni warono a défilé di jubilé té année yi passé yépp ñu ko daan feetu nee na annulé nañ ko annulé nañ ko ndeysaan annulé nga luñ ñu amutoon de wallaay indépendance mu amuñ ko sax nak mom bokay mom kay xana xanaa yi ñu ni diko weesu nii di jubilé danoo juumoon rek dañu juumon way wax digg yalla indépendance mo amuñ ko won sax bari ko fétu waaw kon boo annulé indépendance bi mu wara a doon la 4 afrique té défé na ni élection yi buñu démé deuxième tour day tomber ak le 4 avril kon ñun xam nga ne amuñ indépendance indépendance bo xam ne da ngay tok ba yaa ñu annulé ko bu am naa la seet cey makke ak annulé man ko tey makke ak annulé garam na arandalé ya te te ndeke ñun yi wessu yépp ñu daan ñu daan jibilé ke naan sun 4 avril ndeke poisson de avril la won ñun poisson de avril lañ doon def Macky Sall annulé na néna sur indépendance la carte avril ñu wara jubilé naan ni ba tere barafo et néna amul mané néna amul ku ci ñawlu woon ndax jigéen ñi moom dégg lu xew na ñawlu 4 avril na ñawlu coupe de na ñawlu ligue des champions ku ci ñawlu woon rek euh, mën nga jenc ba tabaski sibile amul Macky na annulé ay <laughs> eh, Macky Sall annulé nga luñ amutoon de ñun mus ñoo am indépendance ama naa ko xamutoon rek mus ñoo am indépendance bu loolu weesoo bu fekkente ne élection dafa jeex premier euh, maanaam premier tour ci la ci la lépp jeex ci jour bi lépp leer Macky kat avril bi nga annulé léegi da koy wala ndax yow kat am lu day fekk nga dem Paris ma fatik xam nga annulé dal xam nañ c'est Macky nag comme kuy bay annulé da mel ko koy bay rek andale àndale annulé àndale toxal ba benen yoon ñaan leen ko ci ñek annulé annulé nga lu ñu amutoon de carte mo wax deug yalla ñun dañ ñaan civilé ni rek way mus ñom indépendance indépendance bi nga annulé annulé nga lo xam mo wurtuna am sax lu wurtuna am nga annulé wurtuna am ñun amuñu indépendance ak réeroo amna